أنت ربي وكنت لي بدادي Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration yooyu amul fenn ay carreau pour s'en ay cuisine wala sen toilette ay grepoli 60 60 ay plainte wala ay baguette ba ci ay carreau parquet lépp ci bir Taïf caro ay caro espagnol 60 60 wala 40 40 mars escalier wala contre mars a ah, mbok yi lepp lo soxla ci walu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw Taïf Karo li ci gën a neex mooy Taïf Karo defal clients yi promo boo jëndee karo yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf Karo nee naa la matériel sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy siège anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau un niveau deux wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a seen kër ba mu yëpp bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77 745 76 88 wala 76 923 33 85 ak Touba Taïf Karo ñooy number one ci wàllu jaay karo. salaam. maa ngi dina kontaanee dinaa ñëw caaro ñu waxtaane ko gën a yaatal. si yow dugg ci gaal gi. di la baal loo xam baax na. ndeysaan su waxee si yow. aja peera ngi nii. père maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay. yaa ngi jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax a sant nii di meññee rek. yàlla sant ñu bokkuñu ñu ñëpp. tey nga indi Baye Mandione Junior tey nan nga ko indi. waaw Baye Mandione Junior day xale bu yaru rek xam nga joxe cër xam nga di ànd ak gram di entraîner. buñ ko digalee mu def buñ ko teree mu bàyyi moo tax bu amee combat ñun ñëpp dañuy ñëw taxaw jàppale si ko di ko ñaanal nag yàlla suñu borom defal ko ndam tey daal loolu daal lañ ko yebe tey ji loolu lañ koy waaw. la laaj tey. li mu laaj mooy toog ci ay tànkam euh, diree ku bëree ak moom rek mën a xeex ak moom tuuti rek soog a soog daan ko comme que le bërekat la bala ñoo jàppante booy bi jéem kaa fexe bu ko tuusee rek war na kaa a daan lu gaaw gaaw. pour dem yoonam. adversaire bi xam ngeen ko mooy Bati euh, Batista numéro 2. non xam nga euh, euh, xale yi léegi dañuy lire adversaire ñun suñuy jamono daawuñu lire ay adversaire parce que ñun dañuy xool li ñu rek buñ ko indee. ñun ñu def loolu balaa balaa adversaire bay def man mi nam ñun ñu ñibbi. mais comme xale yi léegi nag dañuy lire adversaire xëy ñoom si seen biir xamante nañ parce que dañuy waaw. mais mbër mi dañoo gis ni mooy Baye ko wax ci làmb ji. ma ko ji daal mooy sa bis bii si nga war a mën a jógee tàkk. mooy nga toog nag say tànk diree ku bëree ci fula ak fayda ba daan. parce que tamit. te dafa war a génn fekk ay moromam. bi muy a dem yoonam. kon ñoom ñaar fii ji ku si daan nag da ngay génn tey dem sa yoon. waaw dañuy ñaan nag Baye daan waaw. fekkoon naa la caaro yi nga ne ma combat Liss ak Pokola boobu combat du yomb gars yi bu ñu jàpp ni euh, ki nga xamante ne mooy Pokola mun na euh, mun na sonal bu baax a baax ki nga xamante ne mooy Liss Ndiago làmb ñoom ñaar ku si nekk war ngaa mën a daan sa morom boobu combat keroog nan nga ko jàngatee ak nan nga ko gisee. waaw mooy li ma la waxoon caaroy rek parce que damaa xam boo yooyu Liss xam naa fi muy entraîné euh, sunu doomi grand frère Asma yàlla na koy sunu borom yërëm xare ka ma xam qualité yi boo yooyu moo taxoon may la du yomb. même bin ñu leen bëggaatee nii bu ñu doon bëriwaat du yomb. bu ñu doon bëriwaat. du yomb. yomb du yomb. xam nga Aziz bëgg nañ la tëkkaat. même combat boobu du yombaat ñoom ñaar. parce que dañoo war a bëriwaat leeral ko. mais kañ lay leer. nan leen tëkkaat dugalal leen ci géew bi ñu xool ba xam. mais du yomb moom ci ñoom ñaar ñëpp. mais keroog ñoom ñaar bëre kala ci gënoon arrangé keroog situation yooyu. Pokola la bëre gën a arrangé parce que Pokola Pokola ñëpp xam nañ day bëre. moom na koy war ndox ma sax muy bëre kon moom la bëre arrangé woon. Liwis xeex moo ko arrangé woon. mais tey ñoom ñaar ñëpp xeex nañ bëri nañ ba amateur yi kontaan ba yàlla def li muy def. keroog xeex bi ñoom ñaar nan nan nga ko jàngatee. waa Liwis xam nga moo doon xeex lu bari ba ba tuuse ko. bu loxo am gënoon diis tey làmb ji mën naa gën a yomb ci moom ndax loxo bu diis mooy gaañ nit mais sa loxo bu diisulee man ta gaañ nit kon moom foog mu dem tamit jàngiwaat gën a jàngiwaat xeex ba loxo am xaw a diis tuuti daal ba ku muy bëreel tamit nga xam ne bu la dóoree nga man kaa yëg waaw ñaari chute yu am nan nga ko gisee chute yi ñaari chute yi mooy kaaw bi ak ak bi nga xamante ne daf na ko bokkalaam loolu pour man erreur de arbitre la rek parce que tamit xam nga Pokola dóor ko mu daanu foofu victoire amu fa bu fekkee Lewis bi muy génn benn tànkam daw di ko jabaxal sifflé na kon jël la amu fa. waaw ñun daal loolu lañ ci mën a jàpp parce que ñoom arbitre bi ak ñoom entraîneur yi ñoo déggoon loolu ñun dégguñu ko waaw. Sa Thiès bëreeg Eumeu Sène Eumeu Sène daan ko mu nekkoon combat capital Eumeu euh, Sa Thiès boobu làmb lan la lan moo ko ci mën a fekk ak tey jii ëllëgu Sa Thiès ci làmb lan lay nekk. waa dara mënu ko cee fekk xam ma doon dara mënu ko fekk Sa dafa bokk ak ñëpp génération dafa bokk ak ay France génération ay ay ay Ama Baldé ay Boy Niang ñoom ñëw rek rek ñoom ñëpp a bokk benn génération yàqalu ko dara loolu mu arrière dem defaru jiwaat parce que làmb bis boo waree daan rek cuura kay doon keroog yàlla dogal amat seen daan yàlla naka ndam li jig dañu koy féliciter di encourager saa kees bu baax a baax mu gën a retourner dem defaru ji gën a taxawaat si boppam entraîner àndaat ak ay mbokkam parce que manqué wul dara ci làmb xale la mën nañ koo séntu ci roi des arènes ëllëg parce que mën naa man mën naa nekk kon tamit loolu daal lan koy santa daal mu gën a góorgóorlu dem entraîné rek. ban erreur la def ci làmb ji. erreur bi ma jàpp man man sama wàll boobu mooy euh, li mu daan def ba ma gisulee mu def ko laa xam ni kii rek kaa téyeloo boppam mais arbitre ba daan wax fir mu ñaan daw songi daan songa di daan songa di daanu kon nan nga bàyyi mu bëri loolu le lu mu am jël waaw. stratégie bi am ma seen teg nan ko gisee. non am moom day ndaanaan kuy bëree moom foo nga calcul parce que dafa mën a bëree te mag moo xam ne la néewul doole parce que day defaru kon kuy bëree moom foo nga jox ko cër bi moom soo ko joxulee heure da lay daal loolu moo dal Sa Thiès rek mais loolu du dara Sa Thiès laataa muy jël làmb ji ñu ne bu bëree ki nga xamante ne mooy euh, Eumeu Sène ba pare après ci Modou Lô la jëm ndax jàpp nga ni euh, Sa Thiès fi mu bëggoon yegg euh, day taxaw wano man da taxaw sax bu fekke ni yalla dogal na modlo mi ci lamb ji ba legi Sa kess man na dem arrière dem defaru ji ñew beure fi combat dan danan modlo man naka may sens parce que modlo tamit champion la mooy le roi des arènes nan nga koy nongul fu dëgg yàlla di ko félicité bu baax ci lolu ndax da nangu tay ji wacc pour may xalé yi chance comme nangu na wacc may xalé yi chance rek yaakaar naa ni ñom ñëpp de leen may sens waaw amma sen tay ji boko ko doon jox ay adversaire yan adversaire nga koy jox actuellement amma sen mel na leen man na bëre Franc man na bëre Alioune Sèye 2 mais Alioune 2 buñ ko faté parce que dafa yaaka ci yoon wi ta def na fi ay sorties am njariñ man su ma doon Eumeu Sène su ma koy doon laa koy dugal. mais gars naan guy gi bu jugee si diggante ak Ada Fass. ba tey Eumeu Sène xam nga comme moo diggoon guy gi sens. man naka kaa may tamit. mais Eumeu daal mooy choisir. ku mu choisir daal xamal ne lay bëreel. waaw mais léegi naa bàyyeeku ma maa ngi ñëw. sa <laughs> jox nañ ko décision arbitrale ndeysaan jox nañ ko ndam par décision arbitrale am na ndaw am na ndam. Batista am na ndam par décision arbitrale ndeysaan parce que ki nga xamante ni ki nga xamante